dikkati naa cey bu pënd ba wuree turbine yéen kaay naan maan ca ngeen di xam ne dëgg daal mooy njëkk mooy mujj xam nga kàcc moom bu jëlee ascenseur dëgg daal di jël yoonu escalier yàgg-yàgg ñooy daje ca porox ndool la ga daal di jàkkaarloo te dëgg fa mu mënti mujj mooy daal di mën turbine yéen kaay naan maan xam nga xel mënta nangu ñu ne la tey jii ci mim réew ak saytoog fichier électoral beeg yëpp tege naa ko nale ma ne la réewum Sénégal rek ñu taxaw ne la Amadou Ba ñetti million jàpp juróom-ñaari téeméeri junniy parrainage am na ko ngir Benno Bokk Yaakaar Amadou moo gën a siw président Macky Sall Amadou ëpp doole président Macky Sall Amadou mën président Macky Sall du dëgg yéen kaayib dee média bi naan kon daanaka ñeenti million gu parrainage yii xel mën na caa teey te bu ca teey def dëgg dut mën na caa am te bu ca amee defub dëgg mim réew ma ni la ku ne la Amadou Ba mën na fee gën a siiw président Macky Sall ëppale ko ay parrainage gën ko nekk ci xoluk sénégalais yi du dëgg critique yéen kaay ne ko déet xam nga Amadou la Sall ngaari lam tooro dundul woon 2012 lay dund 2024 ña nga kay di ko karkaraatoo ko moom Amadou waa partem ñoo ngi koy dunduloo daanaka jaxannama di ko sot sotoo di ko def ab barrage Amadou moom toog ci ru xam ni cell candidat bu Benno Bokk Yaakaar bi ma ni la mënta sax imposer boppam te fi mu ne waa biir partem ci boppam dañoo tiit ci tabb gin tabb Amadou ba ndax aatu mama ma ni la Amadou mii mën naa këpp seenug yelwaan vox populi mel ni ku naan kon xanaa bu ci président Macky Sall jàppul ndax démb nag député yi nga xam ne ñoo nekk ca assemblée nationale daal dinañuy sot sotoo maître Sidiki Kaba ba maar day taali naan kon Sidiki Kaba mënoon nekk ministre de l' intérieur bokk APR bëgg tëggi élection Ayib Daffé Abbas Fall ak Bara Gaye daal di soto ki Sidiki Kaba ne ko dañoo ragal daal bés boo tëggee élection yi la nga xam ni moom la APR bëgg nga def ko la opposition bëgg nga daal di tàbbal géej moom sii di naan leen déet élection yi nar a tëgg ci mim réew de dana jaar yoon dana leer te lépp loo xam ne bàyyeekoon na ci urne yi daañu ko respecté vox populi naan man maître Khoureychi Ba ma nga leen xel daal teey na xam nga xel mënta nangu fii ci réewum Sénégal leen ay terroriste fitnaal leen tiital leen ba li nga xam ne moom la ñu war a ràngoo ci wàllu politique ñu daal di koy ragal maître Khoureychi ba naan Sénégal fi mu ne dañoo fitnaal seeni ndaw loolu nag mooy dëgg turbine yéen a kaay naan kon fitnaal yi baykat yaa ngi mer ba maar day taali ndax kilo gerte gi njëg gi nga xam ne am na ko ci réewum Sénégal waxtu woow l'observateur naan man médecin yi ñoom ña ngay teex teex may ree daal di nañuy réussir daal di defalu broñoo koo xam ne dafa amoon wopp ja yoxaan yi ni du wan médecin chef directrice bu hôpital militaire bu Wakaam nee na réussir nañu bu njëkk bi fi mu toll nii fukk ak juróom ci ay couple ñi ngi xaar ñu jébbal leen ay roño te loolee ngir mu am daanaka fukki million di nga ko joxe ci mim réew l'évidence yéen kaay naan man bugaan géy dani ma ngay rafet looti moom géy naan wopp roño gi nga xam ne daanaka ñi ngi ci yoon ngir daal di koy jële ci réewum Sénégal daal rafetlu na ko exploit bi nga xam ne docteur daal nañ koy def ci réew mi bugaan gey danee njiital gëm sa bopp ne maa ngi koy rafetlu te faaw nag ñu saytuwaat def ay action yu ngir mën a joyanti wérgu yaram ci réewum Sénégal le mandat yéen kaay naan kon ma ngay félicité médecin yu Sénégal di féliciter professeur Alain Ndoye bu hôpital Aristide Le Dantec waaye tam équipe bokk na ci nag médecin militaire yi tribune yéene kaay naan Conté Bougane ma ngi ca rax naan leen ñam leen ma yéen réewum Sénégal xam nga fi mu ne maa ngi sar xolle di rafetlu la nga xam ne ab jéego te médecin yu Sénégal gii def ko te bés bu ngeen ma ñamee daal di may fal ci mim réew man Bougane Gueye Dany nee naa leen ñi nga xam ne dañoo am woppuk roño waaye tam ñi nga xam ne dañoo am jabet seen faj gi duñu fay dara ci mim réew yoor yoor naan kon ci wàllu politique moom Bougane Gueye Dany daal ma ngay sempi waa Benno Bokk Yaakaar ca kumpen Makutum open press tour bi def na effet yenn kaay bi naan maan waa bennoo ngay fàq di roñ-roñi fu ngeen jëm waa bennoo naan leen xanaa fekki Bougane Gueye Dany mi nga xam ne ëllëgu politique ci loxoom la tegu ci réew mi direct news naan maan boobu président Macky Sall daal ma ngay defaluk frein bitey bëgg-bëgg askan wi ci waa Sénélec moom président Macky Sall matale na ko Oumy Ndour ak i gaayam soobu woon ci xeex ci facture yoo xam ni cher na waaye tam woyofal goo xam ne jéggi na dayoo moom Sall ne leen jël leen la ngeen bëggoon matale naa ko troisième tranche jeex na ci mim réew ñëppay tolloole yéene naan maan Sall dafa xool xelam fàttaliku la nga xam ne amoon na ci jamonoy Abdoulaye Wade mooy fitna yoo xam ne courant bee ko andi woon laaj ba moom moo di nag waa Sénélec ci boppam du ñu fay courant loolee nga xam ne ñu ngi koy jëfandikoo nu mu leen neexee fayuñu ko ci miin réew kan nag moo koy daal di gàddu la Sénégal gàddu fi mu ne moom moo di nattal gafa jëwrin yi tribune yéene kaay naan man Sidiki Kaba niki démb ñaari téeméeri fanweer ak juróom ñaar ci milliards am na ko tribune sport naan kon Lat Diop ñu daal di koy yokkal fukk ak ñeenti milliards ci budget critique yéene kaay naan kon terewul day kan gi ci réewum senegal boo maytul ñu ñàkk ko te demagun ca fayal laaxu fi mu toll nii ma ni la xeexoo gu rëy moo am diggante Lat Diop ministre des sports ak njiital fédération sénégalaise bu football muy Augustin Senghor l'observateur boobu naan opposition bi xool leen seen bopp wala yéene kaay bi naan leen la may xeeñ ci yéen neexul lee fa yéene kaay naan kon moo taxit Sall yabe na leen nu ne Sall daal ma nga yor ay xeeram di leen jor naan leen nu toog waxtaan dialogue mayewul ci mim réew gaw ma ni fitna ak xët xët mënees na ko maye réew mi ko di naan kon niki ci forum bi nga xam ne jàmm la ñu bëgg ci Afrique la ko doon waxee moom président Macky Sall di daal di artu nga xam ne dañuy def ay coup d'état naan leen Afrique fi mu toll nii soxla nag noppalu Le Soleil yéene kaay naan kon sanctuaire bu yees bu Marial bu Popenguine des na ko dalloo fii ci suñum réew Sénégal yéene kaay bi naan man premier ministre bu Pape bi daal dina gane si moom it Sénégal war a juróom-ñeenti fan ci weeru décembre sanctuaire bu yees bii war a waxtaan waaye tam war a amal ay liggéey ak jàngu bi ci réewum Sénégal l'observateur naan man Sénégal fii la tollu de ab bébé la ñu fekk ca Matam ca àll ba mu daal di faatu yaram yëpp